léegi li indi li indi problème bi mooy ñun mbay moo nekkoon suñu xel sax dëkk nangu la suñu xel mais dañoo jékki-jékki ñoom seen bopp ñu dugal fi ab géomètre boo xam ne du cadastre mais privé la Maawo Fall la tudd bi mu duggee ci zone bi def ay ay ay ay boppi borne mais euh, bornewul àll bi maanaam maanaam c'est pas euh, euh, c'est pas lotissé ay ay ay borne la def ay repère borne la def nit ñi bañ ko xam moom ci boppam eaux et forêt mës na koo jàpp ci àll ba fële confisqué bagage am ci dagg bi mu doon dagg c'est pour vous dire que c'est une forêt classée. autorité yi lañ bëgg ñu wax ci les plus hautes autorités ci kaw ba ci président de la république ndax tey ñu ngi jàkkaarloo ak justice te en général ñun ñooy perdant yi. am na koo xam ne trois mois lañ ko may délai pour mu génn kër gi te moom euh, njabootam foofu la yaakaar ma yaakaar ne nag forêt classée lettre d'attribution waru faa dugg tant que déclassé wuñ ko. mu ngi mel ni rek man niñ ko gisee jigéen ju ëmb dem euh, kii euh, état civil ne alors nañu defaral doom ji kay juddu te juddoogul c'est réew mi la Ngiraan Njaay yal na yàlla yërëm euh, dugal ko àjjana moom ci boppam moo daggee si moom la commencé ñoom ñoom ñoo def loolu bañ ko defee affaire bi indi coow commandant bi ñu naan bi tey bi tey bi tey bi tey ñëw bi tey bi mu ñëwee moo freiné moo freiné affaire bi mu woo ko xamal ne ko fii ngay dagg ni eaux et forêt la moom ci boppam il nous a reçu ba ñu rosee këram mu ñun de def nañu erreur dañ leen a waroon a recenser te d'ailleurs sax foofu forêt classée la léegi xam nga nu ngeen di def da ngeen di toog xaar bés bu ñu déclassé foore bi yéen ñëpp dinañ leen recenser loolu la bàyyi woon suñu suñu suñu kii. li xew Thiès ma dafa mel ni amul benn région du Sénégal des lettres d'admission dans une forêt classée te te se ces lettres d'admission la am na yoo boo demee Kadas dañ la naan foofu forêt la waa Kadas mosuñu fee dugg dagg une ay privé ñoo ko dagg te ñoom ñooñu la ñun nag ay baadool ñu fu ñu dëkk la ñu soxla xeexuñu xuloowuñu loolu daal lañu bëgg ku ñu mën a jàppale mu jàppale ñu ci wasalaam